nee nga il a un bon bilan matériel lan nga koy lan nga koy reprocher est-ce que moom sa gestion d'une façon ou d'une autre bokk na ci li tax nga fippu décider investir le champ politique est-ce que da jàpp ne moom Macky Sall dañ ko jox puso bi mu réer ci loxoom walla est-ce que da nga jàpp ne il bien travaillé il doit passer waaw wax euh, li may wax mooy que ni bay na waaram. bay na waaram na waaram. am na lu baax te bëri na def na ko ci réew mi en terme de bilan matériel ñaari mandat yi mat na defe na mën na passer la main. mais il faut d'abord njiitu réew nga jàpp ni jóge ci pouvoir du gàcce te ala kulli aal ala muy tey walla suba dinga dem li baaxul mooy ñëg ñëg ñëg mooy lan nga jàpp ni ci 17 million de sénégalais balaa ñuy xam ñaata lañu exactement bu recense mi bi jeexee man rek maay koo xamante ni ki mën a doxal dem ba fàtte ni am na ñi la jiitu te pourtant dem nañu ndax Sénégal nuñ koy waxee suux na. suuxul bay na waaram te pour man benn ñàkk nguur du gàcce ñaar mën nga dund comme on fii après le pouvoir te wax naa ko président makisal ndaw la en tout cas tolluwul foo xamante ni tey jii mën nañu ne voilà demal lu ji nga truc mën na continuer di servir. mais xam nga wax réewam ci yeneen anam mën na continuer di servir également au plan international. parce que aussi addina bi noonu lay doxee. xam wax ji wax ji mooy ne moom nday jibbili ji ba tey waxul kenn ne moom day toog wala day dem. waaye xam nga loolu moo tax ma ne euh, sauf ko aussi sauf ko aussi. Hmm. ñi nekk ak moom ñu ngi koy pousse. xam nga loolu moo tax bu fekkente ni ñi nekk ci wetam ñu ngi koy pousse pour mu defaat ñetteelu man mandat. war nañu mën a tax war nañu mën la décision finale lui appartient war nañu mën a taxaw am nañu sañ-sañ boobu ne ko ah li ñu waxoon mooy bu ñaari mandat yi mate